bismillah bu dee laaj bi ci tegee mbokk mi laaj ne kuy jàngal gone bëgg mu mokkal rek mu ne ko sa bind bii ma la jox boo ko mokkalee rek mën ngaa daal di wàcc boo ko mokkalee da ngay daal di wàcc ba ka gone mokkalee nag insha allahu rabbi mu bañ a wàcc maanaam daal nekk da ko doon nax waaw loolu day moom ëpp naa def ci ñaari anam bu njëkk bi mooy wax lu dul dëgg la ñaareel bi mooy nit boo yar ay gone bëgg def ci ñoom jikko bu leen tàmmuloo wax ju baaxut wax ju wax ju jubut loolu baaxut maanaam kenn du yar gone ci wax lu dul dëgg ndax loola gone ga day ne ba xam ko léegi boo liggéey boo ne koo sa bind bi boo ko mokkalee dana ah kii da day wax rek ko yaaka tàmmal loola kon loolu kenn du ko def gone da nga koy jàngal ak dëgg incha allah moom daal ne ko boo ko mokkalee duma la duma wala yeneen waaye nag boo ko mokkalee wàcc mu mokkal nga ne ko toogal mu daa di xam ne yow mii li ngay nekk nekk kilifa nekk ab sëriñu daara yaa ngi koy wax lu dul dëgg kooku moom yàlla na ci yàlla musal baaxut wallahu aalam bisimilah bu fekkee laaj bi ci tegee mbokk mi laaj ne koo xam ne day jàngal gone xëy na nag bëgg mu mokkal tax mu ne ko boo mokkalee rek maanaam sa bind bii daal wala lii ngay jàng boo ko mokkalee rek ba tari ko rek wàcc ba ko gone ka euh, mokkalee ba tari ko ndekete da ko doon nax rek xëy na daa bëggoon mu mokkal rek moo tax mu wax ko loola nga ne gone ka wàccut loolu de ëpp naa def lool sax du système bu baax euh, te ñaara ngi ci biir yoo xam ne dafa juuyoog njàngalem yonante bi sallallahu alayhi wa sallam dafa juuyoog alquran ndax ndaxam sax alquran mooy njàngalem yonante bi sallallahu alayhi bi alihi bu njëkk bi mooy wax lu dul dëgg wax nga ko lu dëgg nee nga ko boo mokkalee wàcc mu mokkal wàcce woo ko ak lu man a xew rek wax lu dul dëgg ak loo ci mën a jublu moom wax lu dëgg am na ñaareel bi mooy wóoteeku bu dël xulful waad waalam bi anna xulfal waad wal kadib nga sëñ Tuubaa doon waxe <laughs> ñoom ñaar ñooy afatul xadis yonent bi salaa salaam wuute kub dëxal da koo boole ci mandargay naafiq yàlla nañ ci yàlla musal kon nga ni mu bone gis nga ni bi mooy wor am na ci mooy nga waxanteeg sa moroomu gor nga noppi ne ko naxee mbaay loolu dee su def moo tax alxuraan sax bi muy jàngale aayatu day ni eh, bam ba ci biir mu fa in amina baadukum baada falyuwaddi allazi tumina amaanata wala boog bu dee riwaayatu war si ñoom ñun moom dañuy jàng fa in amina fa in amina baadukum baada kon falyuwaddi allazi lazi tumina amaana amaanatahu jégalu lazi tumina amaanata alxuraan nee na képp ku ñu wóolu ngir yàlla rek nanga fexe ba la tax ñu wóolu la na ko matal da yokk sax wala yattaqillaaha rab te it na ragal yàlla ca lam waxoon lam digee woon na ca ragal yàlla kon nag xale bi nga ne ko boo mokkalee wàcc mu am ci yow confiance lool ne kii de ndeysaan ab sëriñu daara la sëriñu daara de ñoom ñooy ñu fi gën kii day sama kilifa la damay roy ci moom wóolu la nga wax nga ne ko naxee mbaay kooku yàq nga ci moom lu bari man naa mu ne ah sëñ bi kat ndeke ay waxam moom jërta tabarkàlla yooyu gaa di wax loolu te it du la ci muccloo ndax fi ne léegi boo ko waxee loolu wàccut bu ëllëgee boo bëggaatee mu mokkal nooy def da ngay jaar fa nga jaaroon léegi lu muy wax du ko du la gëm nit nag boo nekkee kilifa di yar nga dem ba nga wax nit dara mu ne kii yàggoon na ma ko wax defu ko loolu fa la musiba tàmbalee kon kuy yar doo jàngal ña ngay yar lu mel nii yoonu mel ni doo leen ko jàngal déedéet ndax xale day jàpp wutal beneen méthode laaj bi ci tegu mbokk mi laaj booy waxal gone ni ki sëriñu daara yàlla na leen yàlla yokk wér yàlla dool leen a sàmm sonal lañ leen lool fan yi waaye nag ci ci sàmm yàlla lañ nekk wallaaw ku jéem a fexeel moom tabarkàlla yàlla na leen yàlla dool li sàmm ah, bu fekkee da ngay waxal gone te fekk bind bi nga koy waxal dafa am sajda muy laaj ndax da ngay def heure boo accès ci sajda bi rek nga sujjoor ko déedéet mën ngaa def boo ko waxalee ba àgg ci rek nga sujjoot la ca des nag nga continuer di ko waxal ndax yow sajda daa am lu ko tax a jóg waaw du caagin ko heure booy jàng alxuraan rek ñu ne da ngay def su da ngay sujjoo déedéet déedéet daa am lu ko tax a jóg mooy lu mel ne koo xam ne da ngay jàngal nit eh, ci xam-xamu alxuraan ak atte ak yu ko nuru wala ngay déglu bu ko ko sujjootee nga war a sujjoot ak yu ko nuru amaa nag bu fekkee da ngay waxal gone ba agsi ci sujjoot te yow bi seet yaa ngi dëpp di ko wax ak a waxaat boo ca agsee rek na nga sujjoot benn yoon la ca des rek nga daal di continuer say kon continuer sam njàngale ndax boo ko toppee xam nga da lay yàqal doo mën a jàngaleeti waaye ñaari bind lay jël wala ñett heure boo ci accès bëgg a daal di rot su te yaa ngi war a waxal ñu bari loolu mën na koo yàqal kon boo ci accès wenn yoon rek mën nga ko daal di su jóot la ca des nag incha allah mu yem foofa bu dee laaj bi nga xam ne moo ci tegu mbokk mi leerlu imam buy xutba ba mu yàgg njàppam toj waaw imaam jooju de bu dee xutba bi moom mën na ko àggale xutba moom sartuñ ci ak laab sartuñu ko ci nit ki mën naa bañ a amuk laab mën naa bañ am jàpp di xutba waaye nag kon faaw bu wàccee dana war a dem jàpp ji kon fekkee jumaa ji am na ay rëbina te loolu moo gën a ci jumaa yi wala ay satala wala yu mel noona incha allah nañ gaaw rek la gën mooy mu dagg xutba wax kenn ne ko gaawal duyal ma waajal ma satala waajal ma jàppukaay su ko wàccee rek daal di jàpp daal di ñu xaar kenn du kenn du wutal kenn dañ koy xaar mu daal di gaaw àggale loola. ni sax bu fekkoon ne dafa xutba ba noppi xutba moom dana wér amul ndox moom jàppoo foofa dafa sori kon faawu nag dañuy jël kenn mu daal di jiite julli gi nag mooy ñu koo xam ne fekkoon na bi ñuy xutba incha allah mu daal di jiite julli du baam war xutba bi nag day julli rek wallahu aalam bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al anbiyaai wal نبينا محمد المكين وعلى آله الطاهرين الطيبين أجمعين ورضي الله عن الصحابة وعن التابعين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين بسم الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا nuy dimbandikoo sunu boroom subhaanahu wa taala di jéema tontu laaj fi jotorot ci yoonu al imaamu malikin rahimahullahu taala bu dee laaj bi jiitu soxna si day laaj ne dafa am jàngoroy hémorroïde muy génne deret ndeysaan yal na ko yàlla saafara na ko yàlla taxawu yàlla saafara ko jàngoro la ju méttee méttee métti mu ne na dafa dégg ñu ne pon maanaam pon nga suuroo ko maanaam daal nga jëfandikoo pon xëy na suuroo ko saxar si dugg la ñu ne day faj hémorroïde mooy laaj kon moom sax nee na daa mel ne am na ñu ko def ba wér loolu nag xëy na ñun dese nañ cee am lu leer wala kulli xaal ab laajam daal mooy ndax dana dagan mu jëfandikoo ginnaaw bi ñu xamee ne tux moom dafa xaraam léegi nag ku feebar war koo jëfandikoo ngir saafaroo mooy laaj ndax sariya dana ko ko daganal waaw awalan li ñuy njëkk a lijjanti mooy ndax loolu wér na ba noppi ndax loolu wér na ndax xam nañ ne moom. saxaar si ñëpp d'accord nañ ñi seen xam-xam màcc ci wàllu wér-gu-yaram d'accord nañ ne saxaar soosu nga di ko bàyyi muy dugg sa biir yaram bi ay feebar yu bona bona bon lay joxe dem nañ ba ne mën naa rey nit dana jur cancer yàlla nañ ci yàlla musal loolu moom docteur yëpp daanaka ñi yëngatu wàllu faj d'accord nañ ne tux saxaar soosu euh, saxaar soosu waxuma la kii tux waaye ki denn ak wetam dong mu di ko dugg wax nañ ne loolu moom danger bu rëy la maanaam xator la danger bu rëy la dana jur ay jàngoro yu rëy rëy rëy rëy ah léegi nag loolu nu mu ànd ak nag nit ki jël saxar soosu nga xam ne mooy bàyyi ci pon di ko suuroo ba noppi muy wér kon lislaam li muy laaj rek mooy ñax am xam-xam ci wàllu wa ñoom lay laaj ne leen lii ndax wi lu wér la ndax suuroo lii day faj émorite mu lay faj hémorroïde ndax dëgg yàlla docteur yi duñ ko digal kenn wala ba gisaguñ kuñ ko digal léegi nag ngir tontu sa laaj loolu day dellu ci ñi seen xam-xam màcc ci wér gu yaram rek. bu fekkee ne lu wér la ne loolu ku ko suuroo mu faj la incha loolu dagan na dara nekku ci bu fekkee loola wér na ndax fi ne lu mel ne yàmba am na ay tawat yoo xam ne gëstu nañ ba gis ne dana ko faj waaye nag ñoom duñ ko jëfandikoo ci noonu am na neneen nuñ koy jëfandikoo kon bu fekkee yow jéemoo tux ngir bëgg tux rek waaye da ngay jéem a faju la ñuy xool mooy ndax wér na bala nga ko sañ a jëfandikoo faaw danañ ko laaj boroom xam-xam yi yëngutu ci wàllu faj ñu gëstu ba xam loola wér na ndax dëgg la ne lii day faj wala déet bu fekkee wér na ne day faj nga ne du la lor da faj su boobaa loola dagan na dara nekku ci kon nag yaa ci des yaa diggante ñi seen xam-xam màcc ci wàllu fànn gi muy wàllu faj ak lu ci aju wallahu aalamu laaj bi ci tey mbokk mi laaj koo xam ne jamono yuñ bayee gerte ba gerte ñor. day dem ca magasin ya déposé fa xaalis ci misaal mu joxe fa téeméeri junni nga xam ne bu ñu nee gerte deux cent dix lañ koy jaayee mu dem ca ña koy jaay bàyyi fa xaalis lu toll ak cinq cent mille ngir ñu bàyyil ko gerte lu toll ne nangam maan day jënd daal ci gàttal day jënd waaye mu dafay bàyyi xaalis ba rek ñu ne ko am nga fi nangam ci gerte. bu demee nag ba gerte cher lool ni kii muy jar trois cent wala ñu mel noona su ko defee mu dem. ñu jox ko gerte mu jaay bu fekkee lii la mbokk mi laaj loola moom dagan na waaye nag bu fekkee ne li mu bëgg a wax mooy day dem rek bàyyi fi jimbi xaalis mu mel ne daal dañ ne ko am nga fi nangam bu demee ba mu yàgg mu daal delluwaat euh, ñu yokkal ko xaalis ba loolu moo riba la loolu mu dëgganut dafa mel ne loolu dafa joxe xaalis ñu jekk-jekk tegal ko xaalis te xamuñu lu xew moom daal la cay dagan mooy day jënd bu demee joxe 500000 day jënd ñoo xam ne kii day jënd wala day leble ñoo xam ne day leble bu fekkee day jënd. jënd ak jaay moo dagan na loolu kenn du ko laaj ñëpp xam nañ ko su boobaa bu gerte yokkoo mu ñëw loolu moom ñëpp xam nañu ko kon dafa dem rek lam jëndoon ne teel leen ma ko daa dem wëlbati ko dem jaay ko moo xam da da leen koo jaay ñoom wala da koo jaay keneen nit ñi dafa bëri ay tappale yu ñuy def yoo xam ne lépp dañoo bëgg a jëfandikoo baa bëgg a nax lislaam te lislaam dee su ko nax ndax àtte yi dafa set wicc kon kooku xaalis bi mu fi bàyyi dañuy leerlu ba xam day jënd wala jëndul dafa leble xaalis bi wala lebliwu ko daa am ku mbokk liggéey wala lan la lu xew faaw mu leeral loola bu dee day jënd ñu ne ko sañ ngaa jënd boo jëndee ne bàyyi leen ma fi sama nangama gerte bii bu ëllëgee nga ñëw gerte cher nga ne kay leen ma jaayaat leen ko dagan na waaye nag da nga fiy bàyyi xaalis rek boo boo demee ba yàgg nga ñëwaat ñu yokkal la xaalis loolu moo riba la loolu dëgganut dañoo bëgg a jëfandikoo riba jaare ko ci anam goo xam ne anamu anamu tappale rek la kon bu fekkee da ngay tamit ñu xam ne da ngaa lebal ba tey doo mën a doo ci mën yokk ab dërëm li nga leble rek lañ lay fay bu fekkee dangaa bëgg bénéfice dangay liggéey dem ca ka fa nekk nga ne ko man de am naa xaalis damaa bëgg nag ñu jënd ci gerte yow comme yaa nekk fii ma jox la nangam muy nangam ci gerte bu gerte seeree ñu jaay ñu am nangam mag ngi ñu séddoo nga jël nangam pour cent ab liggéey moom day leer waaye da dem bàyyi fa xaalis rek boo dëppaatee ñu yokkal la xaalis bi loolu moom dafa lënt kenn xamul lan la te lool du dagan mukk wallahu aalam laaj bi ci tege mbokk mi laaj ne dafa dégg ñaari way dencante ku ci murtad rek ku ci génn diina ji rek sëy ba day tas muy laaj loola nu muy demee waaw loola mën naa nekk mën naa bañ a nekk ma nga aju ci masala bi rek ci misaal bu dee ñaari jullit ñaana lu ma leen ko yàlla ñu ci yàlla musal bu dee ñaari jullit moom bu fekkee góor ga moo murtad kon sëy ba tas na sëy ba day tas bu fekkaate gaaw na tuubaat nag ñu delloo ko soxnaam waaye bu fekkee jigéen moo murtad maanaam jigéen ja daa nekk jullit ba mu yàgg mu daal di nekk chrétien kon xam nga chrétien jullit mën na ko takk moo tax loolu du am problème wala mu nekk juif waaye bu dee jigéen ja daa nekk yéefar kon ba tey sëy ba tas na kon noonu rek la demee wallahu alamu laaj bi ci tege mbokk mi laaj koo xam ne dafa ñëw imaam raw ko ci julli ba imaam sëlmalee mu jóg di fay ràkka ya ko dese woon ba muy fay ràkka yooyee mu def ca luy waral xabla wala baax da ndax da koy sujjoot waaw da ngay sujjoot sëñ Tuubaa nee na waxul li mas buuxin araahu baada nee na koo ko ne ko fa anta kal musalli waxda koo xam ne dañ koo raw mu jóg di fay lañ ko rawee daa di juum def ci lu waral xabla wala baada loolu moom kooku mook bu doon julli moom dong war ñooyam imaam du ko ko gàddul wallahu aalam laaj bi ci tegee mbokk mi laaj ne dafa jëndoon piisu orange sim mu leb ca crédit gannaaw ba nag piis ba yàqu te jotu ta fay bor nu muy def xanaa day dem ci waa orange laaj leen ko day dem ci waa orange leeral leen loola su ko defee luñ ko wax rek loola mooy moo di ab àtteem luñ ko wax rek loola mooy àtte bi bu ñu ko fay ñu mu fay leen <laughs> bu ñu ko jéggal nañ la ko ñoo xam nañ ko ko wallahu bi ci tege mbokk mi laaj koo xam ne dafa tàmm yor kurus bi mu julli jógee di julli nag yoraale kurus gi di julli luy atte bi àtte bi de mooy bu fekkee njuumte ak ñàkk rek la moom dara néewu ci. bu fekkee moo ko tey nag def na lu ñu sib ndax dañuy bañ ngay julli di yore leneen loo xam ne dalay bi ci julli gi te kurus nag di ko julli amul benn njariñ da nga koy teg rek boo noppee boo bëggee wér di ci wàññi nga bañee ci naka noonu mu ne bu fekkee ne koo xam ne day julli téléphone di sone mu daal di jël loxoom dugal ci poos bi daal di fay téléphone bi wala mu coupé ko muy laaj ndax loola dagan na déedéet day sul wax dagan na loola ngànt la dagan na mooy bu la neexee def bu la neexee bàyyi loolu dëgganut bëgguñu kenn di julli di def dara làmb sa poos ak di fay ay téléphone ak déedéet loolu moom bëgguñu ko waaye nag bu ngànt amee mooy sa téléphone mi ngi sone la njëkk la njëkk a nekk ak sàggan sax mooy ab jullit dugg ci barabu julleekaay dafa yóbbu téléphone am ba noppi fayu ko wala mu dind mu def ko silencieux nga xam ne du sone nit ñi ñu dëgër bopp lañ ñi mel ne man ndax dangay dugg ci jumaa ca buntu ba ñu bindale fa ab téléphone def ci plus muy wane ne bu fi kenn dugal téléphone wala boo bàyyi leen xel téléphone yi nga dugg ci biir jumaa ji gis ñu bind ko fi teewul bu ñuy julli faaw nga gis njóobee ni seen téléphone yi kalan-kalan di sone loolu a jox ak ñàkk a jox yitte jaamu yàlla la boo demee ci barab yi ñuy ñaane visa ak euh, yu mel noona ñoom dañ naan la doo duggaale sa téléphone nga ne booy dugg sax sa téléphone ci nga koy bàyyi su ko defee kenn du nangoo duggaale sa téléphone ndax dañuy bañ ñu gàntu leen gis nga fonk nañ loolu waaye bu dee jaamu yàlla moo sama maas gi daanaka dañ ciy fox waaye uh, bu fekkee nag njuumte la wala nu mën a doon daal nga nekk ci biir julli gi téléphone bay sonné doo ko bàyyi noonu ndax day yàqal nit ñi kooku moom ngant la néewuñ la def ko waaye dafa nekk ngant danga amul pexe ndax faaw da ngaa war fay téléphone bi ndax boo ko defoon mi nga yàqal nit ñi nga amee leen xaq wallahu aalam bismillah mu dee laaju mbokk mi ci tegu muy laaj ndax mën ngaa jullee néew sol ay dàll julli yëpp moo xam julli néew moo xam julli tisbaar julli yëpp bu fekkee dàll yi nga solo wóor na la ne amul sobe incha allah mën ngaa solo ay dàll wàññiwul dara ah, donte Sénégal nag ñun miinuñu loolu boo ko waxee sax eh, mën naa koo xam dënam dana rëcc ndax ñoon loolu dañ koo xamut waaye saxaaba yi ab yonante bi salaa salaam dañ daan julli di sol seeni dàll eh, daal moom bu fekkee set na ci sobe rek ñëpp d'accord nañu ne ñu mënees na koo julliwaale incha allah wallahu aalam laaj bi ci tegu mooy laaj ndax manes naa jullee néew ci biir jàkk déedéet xanaa ngant waaye am néew moom dee ko jullee ci biir jàkk boo ngant amee nag ñàkk pexe su ko ñu maye ko tey sax dañuy bëgg ñu euh, teg ko ci buntu jàkka ja bañ koo dugal euh, bu fekkoon tey lu mel ne day taw mënuñu ko ñàkk jullee léegi te xëy na mënuñu ko teg muy taw wala yu mel noonu mën nañ koo dugal rek ci euh, buntu jàkka ji lu toll ne luñ ko mën a jullee ñu jullee ko am néew dañuy taamu ñu bañ ko jullee ci biir jàkk loolu lañ koy tere laaj bi tege mbokk mi laaj ne dafa fàttee julli tisbaar ba takkusaan jotee mu jëli takkusaan ba muy liqaam timis nag xelam dem ci ne man kat julliwuma tisbaar nu muy def na ngay def de mooy na nga bàyyi timis gi dem fay sa tisbaar ba noppi boo fayee tisbaar ba noppi nag incha allah rabbi da ngay daal di julli timis rek takkusaan ja moom baax na dara nekku ci xëy na boo ko teeloon a fàttaliku ca takkusaan ja moom danañ taamu rek nga baamuwaat ko waaye comme timis jot na waxtu wa day génn kon daal dangay ngay fay tisbaar boo noppee daal di liqaam julli sa timis laaj bi ci mbokk mi laaj na day gis ñu bari dañuy woor lu mel ne eh, weeru rajab muy laaj nag ndax daa am bis yu ci baax a woor waa jëmmi weer wépp sax boo ko manee boo ko manee nga woor weer wépp sëñ Tuubaa radiyallahu anhu sunu sëriñ doon na ko limaale waraxa boo fii sardi sahri rajabi <laughs> maanaam nga màng weeru rajab yépp nga woor ko am na suñu yaay ju baax yal na ko yàlla dolli wér moom ndeysaan at mu da koy màng woor ko mën ko wutee nga ak njóobee ne ndeysaan ñoom wooru farata gi sax danañ def ay tappale ba duñ ko woor waxantu maag nag dinaa fi la kon boo ko mënee lépp boo ko mënul nag lu mel ne eh, tabaarkàlla eh, fukk ñaar fukkeeli fan ak juróom xam naa mooy ñun fii ci kazu rajab ñaar fan ak juróom-ñaar ba. incha allah boo ko manee woor baax na teewut it yeneen bis yu mën a doon yuñ ci maanaam bis boo ci jékki-jékki woor rek ngir jëmee yàlla rek ba tey baax na incha allah laaj bi teg mbokk mi laaj boo rombee nekk di bëloot wala di carte ndax dang nga leen di nuyu ab jullit de moom heure bu rombee ay jullit rek nee ñu sunnaal nañu mu nuyu leen teewul nag am na borom xam-xam yu ne bu fekkee ne ñooña dañoo concentré wu ci dara. benn mu nekk am fox wala mu nekk ak jaamu yàlla bu nekkee ak jaamu yàlla dañuy bañ nga yàqal ko concentration ba mu war a dagg loola war a wëlbatiku ndax faawu ma fay la ndax fay nga day farata bu fekkee dañoo nekk ci am fox comme ñoom dañuy ñu ngi concentré wu ci ay caaxaan ñooñu jëruñoo nuyu su ma juumul téere sëñ Chouaïb boobu am na ñu lim ne ñooñu bu leen kenn nuyu bokk na ci kii mbokk mi laaj mooy ñoo xam ne dañoo nekk di fox wala yu ko nuru wallahu aalam laaj bi ci tege mbokk jigéen ju aji màkka dem ba arafa mu gis dereti baax nu muy def xanaa dara du def dara day continuer ak ajam rek arafa moom incha allah rabbi jigéen ju ci gis dereti baax way ñëw ko dara day continuer ajam jigéen ju gis dereti baax wër kaaba gi lañ koy tere incha allah su ko defee bu ñuy wër kaaba gi day bàyyi bu demee ba set nag doo ñëw wër ko wallahu aalam soxna si laaj jamu euh, jamu ji jigéen ñi def jam seen siiñi waa dañuy wax ne bu fekkee ne dafa am wérgu yaram buñ cay dabu su boobaa loola moom dara nekku ci defe naa ca mag ña nag daanañ wax ne day am deret ju ci nekk ak yeneen daal loolu la yàllaa xam waaye dañuy wax ne bu fekkee wérgu yaram rek lay yokk su boobaa loola dara néew ci waaye bu fekkee jëmmi ab taar kese kese la moom su boobaa kon dañ koy tere wallahu aalam laaj bi ci tege mbokk mi laaj kuy julli war a yalu ni ki tisbaar lay julli mu jàng faatiha ba jàng saar avant muy roko mu fàttali ko ne moom mii tisbaar la te da koo biral maanaam da doon julli tisbaar di wax ca kaw laataa muy rokoom bu ko fàttalikoo nu muy def xanaa day dëppaat day dëppaat jàngat faatiha jàngat saar te yalu ko te bu julli gi jeexee mu def baax da salaam mooy bu jullee ba sëlmal mu sujjootaat yeneen ñaari sujjoot laaj bi te mbokk mi laaj ne da doon julli timis am ku ñëw di roy ci moom ba kooka sëlmalee nag mu gis kooka di yokk julli gi julli ba julli lu mat ñeent mu ne ko loo doon julli mu ne ko takkusaan mu ne ko kon waroo woon a roy ci man waaye nee na kooka ne am na ñum laaj ñooñu ne ko ah dara néew ci ah kay looloo du baax ah bu dee ci yoon imam malik bii de du baax ku julli timis ak kuy julli takkusaan mënuñoo ànd kooku julli ga day yàqu daa waroon bambuwaat takkusaan daa waroon julli takkusaan bu noppee bu noppee doo ko julliwaat timis daal ñaari julli yu bokkut mënuñoo ànd même bu ñaari julli yi bokkoon sax te bokkuñu bis niki niki kii tisbaaruk tay la kee tisbaaruk démb duñ mën a ànd kon kooka julli ga baaxut ci yoon al imam malik kon ñooñu ma laaj Sénégal nag dañoo dëgër fit ñaari booy laaj moom dañoo xaw ma dañuy jekk daan waaw baax na kay <laughs> te fekk wax dëgg boo leen laajoon waaw ko teg defe naa problème dana am foofa wala kulli xaal loola moom du wér ci yoon alimam mari bi ñuy sukkandikoo naka noonu ngay naafila tamit nit di ñëw di julli farata roy ci booba moom moo gën moo gën a doy waar sax nag moom boobu moom du baax moo gën a doy waar kon daal ngir nga mën a ànd ak nit julli da ngeen di bokk genn julli gu ngeen julli tey julli ga ñoo bokk benn bis tisbaari tey jii di talaata ngay ngay fay tisbaari tey jii di talaata dégg nga wala ngay julli takkusaan tey mu julli takkusaan tey wala bokk ngeen bokk di julli takkusaani démb wala takkusaani barki démb incha allah laaj bi ci tege mbokk mi laaj ne dañoo wax ne suñu borom dana jéggale bàkkaar yëpp ba mu des bokkaale ma ne ko ma ne ko ma jubbanti la danga naan suñu borom dana jéggale bàkkaar yëpp rek ci boo ko tuubee moom moom bu ci génne benn yëpp ci yem inna allaha yaxfiru dunuba jamian bàkkaar yëpp la yàlla di jéggale ci boo ko tuubee bokkaale nag boo ko tuubut la ñoo xam ne duñu ko jégal ku ko deewaale yàlla nañ ci yàlla musal musal ci jullit ñëpp ku ko deewaale te tuubu ko lu garaaw la te mooy jël palaasu yàlla di ko jox mbindeef ab yorant wala ab sëriñ wala kum mën a doon boo ko tuubee moom yàlla jéggal la ko mbokk mi laaj nag waa koo xam ne daa ay julli yu bari ak ay woor yu mu euh, kii woon ndax bàkkaar yooyu kon mën na koo tuub rek <laughs> sëñ bi da ngaa jaawale loolu du bàkkaar loolu lu ñu war a fay la <laughs> loolu lu ñu war a fay la yow ay bor kay koy fay. loolu moom bàkkaar ba mooy sàggan nga mu sàggan ba julliwu ko woon ak sàggan nga mu sàggan ba wóoru koon lool lay jéggalu ñu jéggal ko ko am maa nag da koy fay waaye doo ñëw rek bu doon kon jóobeen yi neex le kon weeru koor wu ñëw dañuy toog war buñ noppee daa di yàlla tuub naa mu jeex déedéet tuub dafa am ay façon bu dee daa am mooy yàlla goo def da ngay jéggalu ñu ñu kii la bu dee nag yàlla guñ la santoon defoo ko lu yàgg-yàgg tuub ga mooy nga def ko am bori koor doo ñëw naan maa ngi tuub bàkkaar ya nag mën nga ko tuub moom bàkkaar ya mooy sàggan nga ma sàgganoon ba am fukki fan yoo xam ne wóoruma woon ñu war ma caa bindal bàkkaar nga jéggulu bàkkaar waaye koor ga moom da koy fay ko am ay bëri julli da koy da nga koy fay loolu mooy tuub ki daa am goo xam ne jëf la tuub goo xam ne wax la tuubug jëf mooy loo waroon a jëf jëfoo ko da koy jëf tuubug kii nag mooy bàkkaar boo def mooy yàlla wala lu mel noona wala lu ñu la defoon nga xaw ko yeex a def kooku jëmmi eh, bàkkaar ba ngay tuub waaye jëmmi julli ya danga koy fay loolu mooy tuub gi fay fay gi moy tuub gi koor gi nga woor ko mooy tuub waaye bu fekkoon ne noonu rek la wax dëgg yàlla kon njóobeen yëpp danañ profité <laughs> tabarkàlla eh, buñ toogee ba yàgg rek ñu daal waa tuub naa sama julli ya ma amoon semaine bee yëpp ko mu jeex déedéet da danga koy fay wallahu taala alamu sawaab wa ilayhi almarjiu wal maab bismillah bu dee laaj bi ci tege mbokk mi di leerlu ne daal dégg ñu ne yonent bi sallallahu alayhi bi alihi nee na ku nay dëgg-dëgg daal mooy koo xam ne ñu ko tuddee du julli ci moom mbokk mi laaj nag nee na waa nee na loolu mooy nay ki nga xam ne ku ko def day dem sawara waaw noonu mu ko waxee nag wérut noonu mu ko waxee noonu moom wérut nay nay ci wàllu alal maanaam nga xam ne doo joxe dara nay googu day nay gu ñu ŋàññ goo xam ne mën naa waral mbugalum yàlla yàlla nañ ci yàlla musal nay da koy waral yonent bi sallallahu alayhi bi bi ñu nettali ci moom mu wax lii tudd ca loolu tudd ca ne ku ko defu da ngay dem sawar wala nangam euh, defe naan dana albaxilu man dukirtu indahu falam yusalli alayya hadis boobu ñi ko nettali nee na hadisun xasan la xam nga hadis daa bëri ay darajaat maanaam hadis daa am hadisu saxiix am xasan xasan moo topp ci saxiix moo tax sëriñ ba ko doon jàngal nee wala xasanu wala boog wala xasanul maaruufu turxan wa gadat rijaaluhu laaka shahihi saharat albayqoniya mooy mooy mooy xasan maanaam ginnaaw bu saxiix jàllee bëgg maa dugg ci yooyu mu dima yàggal sax ginnaaw bu xadiisu saxiix jàllee daal ci gàttal xadiisu xasan moo ca tegu moom daa amul rek darajay saxiix waaye moo ca moo ca tegu wa ala kulli xaal xadis boobu nee ñu xadisun xasanun la mooy daal kanay daal mooy koo xam ne tudd nañ ne ma fa moom te julliwul ci man loolu ëpp naa def ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu du waxam waxi alquran la alquran moo ne dee leen julli ak a sëlmal ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi laaj ko ko ne ko ah, xam nañ lañ lay nuyoo waaye nu ñu jullee ci yow julli su sujjóot lañ ci xam nu ñu jullee ci yow wax leen waxam ju siiw ja mooy da julli ci man julli ci sama waa kër mooy allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad ah, am na salaatu ibrahimiya noonu la ñuy jullee ci moom kon nag ñu tudd yonent bi te waxoo sallallahu alayhi wa alihi Euh, dañuy bañet nga julli ci yonante bi képp yam ca ne ne ñu neewoon na leen julli ci man julli gu manqué ñu ne ko luy julli ci julli ci man mooy ngeen julli ci man te du ngeen ci boole wa alihi du ngeen ci boole sama ñooñ mooy ahlul bayti kon nag foo ne allahuma salli ala muhammadin wa alihi ñu nag tàmm nañ bu ñu tuddee yonante bi ñu ne sallallahu alayhi wa sallam rek yem foofa kon nag sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu moo gën wala sallallahu alayhi wa alihi xëy na waaye daal ñu boole ci waa këram ña waa këram ñi nag ci dëgg-dëgg wax ji gën a wér ci waxi borom xam-xam yi te it moo euh, moo dëppoog la wér jële ko ci yonent bi salaa salaam nee ñu mooy njabootuk saydatuna fatimatu ak sayduna aliyun ak yonent bi salaa salaam maanaam bi ak sayduna aliyun saydatuna fatima alxasan ak alxuseynu ñoom la waxoon ne ñooy sama njaboot muur leen ci mbalaat ma ne yàlla ñii ñooy sama waa ahlu innama yuridu llahu li yuthiba ankum rijsa ahlal bayt ñooñ ñooy ahlul bayt nee ñu soxna su baax sa dafa naa ummu salama nekk waaye yonante bi ah dama cee bokkut mu ne ko déedéet yow soxna nga su ma xëyoon fase la rek da ngay daal di delluwaat sa kër baay daal di nekk sa waa kër baay ñii nag mënuñoo tàqale koog man waxalaa kulli xaal julli ci bi li ci nekk ci ngëneel bari na lool lool dana tax yowbal xeyaam nga jege yonante bi sallallahu alayhi wa ali dana tax nga jege ko waaye li ci nekk ci dana defar nit dana tërbee nit dana li ci nekk ci ngëneel yàlla rek ko xam ba daal te war di nee ñu nag jigéen ñi baax na ci lool baax na lool ci ñoom ndax dafa oyof maanaam jigéen gis deret mu baax du tee mu man ko man na ko kon bëriwut ay sart amut lu diis kon kooko daal yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ku nay la waaye nag ba mu ko waxee yukku ci ne kooko day dem sawara wala na déedéet waaye nay gi nga xam ne nag mooy bañ a joxe alal loola dañ koo ŋàññi lool lislaam da koo ŋàññi lool yàlla ŋàññi ko ci alquran ba nay googee ko koy def rek incha allahu rabbi mën na laa jural leneen yàlla jégal ñëpp nag laaj bi ci tege mbokk mi laaj baytul maqdis maanaam fu mu ñu féete ak fu mu nekk a ah, wax dëgg yàlla dana jafe ci man ma naan la mi ñu féete fii mela ma ñu féete fe ñun yàlla defal nañu sutura dem nañ ba ah, wax dëgg yàlla xëy na dugguñ ba ci biir waaye jege nañ ko dem nañ ba daal ba di ko séen nii moom ah, xëy na nag wàllu kaaraange ak yu bari moo tax mënuñu fa àgg waaye daal ñu ngi ñaan yàlla mooy yóbbu ñu fa néeg bu sell la yóbbu ñu màkkatal mu karba ak mboolem barab yu sell yi baytul maqdis mi ngi nekk ci wetu mi ngi nekk ci Palestine ñëpp xam nañ ko eh, ci frontière ak Israël frontière ak lu mel ne Lubnaan Liban xaw naa jege tuuti eh, côté Turquie jegu ko lool eh, xaw naa jege côté Syrie ñu koy wax Sham wala Iran xaw na koo jege tuuti noonu xaw na koo sori kon daal Palestine moom jafe naa ñëpp xam nañ ko baytul maqdis moom la alxuraan di wax saa aqsa lañ koy tuddee fu sell la mooy ginnaaw kaaba gi eh, daanaka incha allahu rabbi rek mooy barab bi gën a sell eh, tabaan ak eh, barabu yonante bi sallallahu alayhi wa waaye ne Sénégal fii lañu ñu féete nag loolu man man man kiiwuma ko wax dëgg yàlla ok xawma ko man mënumaa wax ne senegal nii la ko féete wala nangam mu taxut ma mën koo jàppe noona bu dee laaj bi ci tege mbokk mi laaj ne waaw ndax ca ca dëgg-dëgg ndax ca dëgg-dëgg lislaam wala boog moom ni mu laaj sax daa wax ne kan moo wax ne ginnaaw yonante bi ab yonante du ñëwaat mbokk mi loolu lay laaj lay laaj kan moo wax ne ginnaaw yonante bi sallallahu alayhi wa ali ab yonante ñëwaat laaj bu xaw a kii maa waaw ki ko wax de mooy ki bind nit ñi ki wàcce alquran ki yónni yonante bi sallallahu alayhi wa ali mooy kan mooy allahu yàlla yàlla de moo ko wax sëriñ bi yàlla moo ne yonent bi moo tëj ak yonent jeex na ak yonent jeex na du ñëwat du amati alquran maa kaana muhammadu naba ahadin min rijalikum bu dee ci riwaay war si ñu noonu la ñuy jànge naba ah, man nga ne maa kaana muhammadun aba ahadin man koo ko jànge walakin rasulullah waxaa lu ci teg waxaatama ak waxaatima ñaar yëpp baax na nabiin moo ko tëj yonente bi salaa salaam alxuraan nee na moo tëj nubuwa kenn yàlla du yónnee ti kenn ku ñëw ginnaaw bu yonente bi jàllee mu ñëw ne dafa ñëw nekk mu ne ma ne yónnante laa nubuwatu nga yàlla di yónnee waxuma la sax risaalatu waaye nubuwatu rek ndax nubuwatu moo gën a oyof risaalatu risaalatu moo gën a kawe waaye mu ñëw ne yónnante laa buñ ko ñemee day bay boo ñu taxaw ne ko waxoo dëgg buñ ko ñemee buñ ko ragalee rek bay boo ñu ne ko ah, tabaarkalla sa wax jii day tabaarkalla wax ko wax ju rafet rek. kon nag ku ñëw naan yonantu laa boo ko gëmee rek weddi nga alxuraan directement ca saasa alxuraan nee na mënta nekk yow nga ne mën naa nekk weddi nga yonante bi sallallahu alayhi wasallam laa nabiya ba'di ab yonantu du ñëwaat sama gannaaw sëñ Tubaa sax ci xasiida gim taalif euh, nu mu tuddati arraiyatu dane alhamdulillahi waxda wasalaatu wasalaamu ala man laa nabiya ba'da maa ngi sant yàlla tey julli ci yonant bi nga xam ne ab yonantu du ñëwaat ginnaawam loolu moom xeetu jullit ñëpp a ci maase loolu moom ñëpp xam nañ ko ndax alxuraan da ko wax yonent bi wax ko ñëpp d'accord ci kon nag ku ñëwaat di wax ay waxi caaxaanam ah, tabarakàllah loolee may wax moom boppam rek la engagé waaye nag boo nee man gëm naa ko nit ñëw ne ab yonent la ci ginnaaw yonent mi nga ne gëm naa ko la tekk mooy weddi nga lislaam jëpp moom weddi nga lislaam weddi nga alxuraan weddi nga yonent bi salaasam ak sunnaam weddi nga saxaabe seen njàngale lépp rek weddi nga ko yonent bi am na ko ñëwoon ne ab ne ab la waaye dañu xeex ak moom Musaylimatul Kazzab nga xam ne ab fenkat lañ ko tuddee gannaaw dañoo xeex ma ci ginnaaw biñ koy rey fekk na yonent bi jóge fii ah, fekk na bi sallallahu alayhi wasallam génn na àdduna waaye teew rek saxaaba yi continuer ba moom dara bind leetar yonent bi sallallahu alayhi wasallam naa ko waa man sa moroomam yonent nangam nangam yonent bi ne ko déet yow kay ab waxkatu lu dul dëgg rek nga da ngay ñëw di sosal yàlla rek wa man aslama mimman iftara ala llahi kasiban fenkat yëpp nag ki ki gën ëpp fit ci fenkat yi yàlla nee na mooy kii fenal yàlla aw xaala uxaya ilayya wala mu yuxa ilay shay wala man yàlla moo ne ma nangam te yàlla nee na man waxuma ko dara yàlla ci yàlla musal kon ñooñu jëru sax di négocier ak di jéem a ah, rafetal boo gëmee la ñuy wax wala nga di ca rafet njoxtu rek nag dindi nga mboolem lu alquran waxoon wallahu taala alamu sawaab